asalaamaaleykum yow mi waaja a déglu sama kàddu yi boo ci jotee bul yem ci déglu ko rek bu dee bëgg ngaa sauver doomu aadama yu bari xettali nit ñu bari na nga fexe ba yaatal ko ñu ñu bari doomu aadama yi ñëpp leen war a yéene yërmande yàlla ndax suñ boroom da leen a yërëm li ma leen bëgg a wax nag dama bëgg ngeen jàppee ko ni. wax ja nga xam ne moom la xadir waxoon ne wama fa'altuhu an amri ci mbiru coronavirus bi man mi leen koy bëgg a wax it du ma du koy nëbbutu duma koy làqtu balaa ma leen koo wax xamal leen ne lii day faj ñi nga xam ne ñoo ñoom la coronavirus bi jot dal suñ leen ko joxee ñu lim bi ma wax danañ wér ñi mu jotuta dal buñ leen ko joxee du leen dal mbaa su leen duggee du leen lor du du du leen faat. li ma leen di bëgg wax nag su ma leen ko waxee ngeen xool ko gis ne wute na ak alquran na ngeen ko weddi te bu leen ko def bu ngeen ko gi xoolee mu wuute ak waxi yonantu bi Muhammad alayhi salaam na ngeen ko weddi te bu leen ko def bu ngeen ko xoolee gis ko mu wuute ak waxi Serigne Touba it na ngeen ko weddi te bu leen ko def ngeen jàngatee yooyu ba gis ne nag nii la demee képp koo xam ne nii sàggane nga ko loola dal yaku ko yóbbee sa bopp bu bu la corona dalee mbaa mu faagaagal la mbaa mu lor la mbaa mu lor say njaboot yaa ko yóbbee sa bopp. ndax ke di da bari legi ba ku wax deug sax dañ koy jappé aw fen waye ma ngi wat ci yalla mi nga xamni mom mom adina ak alakhirah te sak febar te sak likoy faj wax ni ku ko ci def te respecté ko sun borom dana la ci sutural ndax lu bayiko ci yalla da ti man mi len koy wax nak jarut may neub sama tour man mangi ngi tuddu Serigne koso Mbacke Mum Serigne Cheikh lo mbake, mum Serigne Cheikh fal mbake, mom mam maam Thierno Birahim borom moti mooti di domi borom daru ji nga xane mom la Serigne eh, mam Thierno Birahim njëkk a tudde Serigne Touba Serigne Cheikh Faty Fall Mbacké jur sama baay man kon nëbbatuuma man ni waaj wax ni limay wax nak dama bëgg ñu yaatal ko ba ki nga xamni mo rew mi jot ci. ndax day message bu ma bëgg moom mu jotaale ci ngir mu nekk njëriñ loo xam ne dana gën a mën a jàll ci population bi ndax xam naa ne bëgg na lool ku ko dimbali ci lii li lii ndax xam naa ne jàmm dong mooy yéeneem ci réew mi bu fekkee ne ni may dégg ni noonu noonu lay waxee ci jàngoro ji moom ak ñeneen ñi mel ni moom ñëpp jàmm dong lan war a yéene réew mi moom sax moom moom laaj fokk kon bëgg naa ñu jotali ko ba mu jot ci li tax ma bëgg mu jot ci dinaa leen ko wax dama bëgg moom bu ci jotee ak ñeneen ñi ci jot xalaat bi may joxe lii may joxe ñu bañ ko wuutale ak xalaat ba yonent yàlla yusuf yëkkati woon jox ko ko jiite woon misra ca jamono ja kiris bu mel nii xewee àddina bépp xiif nar leen a rey bu mu ko wuutale ak xalaat bi junj nag doy na boroom xel fama yafi mucjizata nabi ya yajuusu fi karamatil waliyi sayiduna yusuf moomee nekkoon ab yonant man duma ab yonant de dama koy wax ngeen di ko dégg du moom yonent ba Muhammad alayhi salaam ñëwee lab yonent jeex waaye daa am ñu fi suñ borom bàyyi nuy wutu ay yonent di di leen doon di leen may wilaaya la la yonent yi daa def muy mucjisa ñoom ñu koy def muy nekk ay ay muy nekk ay ay ay ay keemaan yeneen di di nekk karama li ma leen bëgg a wax nag lu leen neex tudde leen ko ko ba mu des ba mu des jiiñ ma jiiñ ma loolu duma ko tey duma ko ëllëg duma yonant déedéet wax naa ko muy leer ngeen di ko dégg balaa ñu ne sëñ ko dane mooy yonant dama dama leen wax lu leer li may waaj wax wax ju bàyyi ko ci yàlla la te ak dëgg la te képp koo xam ne nii weddi nga ko na nga xam ne weddi nga lu bàyyi ko ci yàlla man gisuma ci àddina bi lu ma jaral fenn wala lu ma jaral tappale wala lu ma jaral di di di wax bu bu bu ma àddina tolloon foofu du ma yendu ci kër te li may yàlla suturaal na ma ba li may génn bariwut feebar bi mu ngi wàccoon fii ci kaw suuf bisub àllarba muy àllarba ci mujj ci biir weeru safar ci at mi nu nekk ci deux mille ci ci mille dix neuf bi ñu bi ñu weesu àllarba ji ñu doon wax àllarbay kare ci àllarba jooji ci waxtu ci ñeenti waxtu la la wàcc ci kaw ci àddina Eh, suñ borom it joxe na ndimbalam joxe na ndimbalam loo xam ne mi ngi ko joxe ci alarba ji mujj ci weeru rajab wi ñu nekk nii weeru rajab wi ñuy ji ñuy génn nii nga xam ni génn nañ ko sax ba fi mu ne ñu ngi dugg ci sambaan feebar bi ci ñeent ci ñeenti mbir la dox ñeent yi bu ma ko waxee mooy alarba mooy ñeenteelu bis ci weer wi mooy ñeenteelu bis ci semaine bi da ngay wax lahdi lisnaini sulasa il arba'i bu fekke ci ni weeru arab di doxe alarba moy ñentelu fan ah, bisum ñentelu fan it suñu ci lañu sun borom dimbulé lolu waxon na sax ay talibé ci bis bi ci alarba jooji bi bis ba ne len li ma len di wax ci alarba ji ne len ko téye ngeen denc ko ba balan ci wara wax jot bu joté di ngeen xamni li taxon ma di len ko wax jàngoro ji nag seytaane iblis ak gàngooram dañ ci dugal seen loxo ci di ko tasaare ak di ko yaatal ba tax na bëri na lool ñu mu dal ñoo xam ne moom bu bu ñu leen laajoon ñoo xam fu mu leen dale li ci seytaane iblis jublu moo ki gàngooram it moo di fexe ba jaamu yàlla yi li li jot am ci ci àddina ku néew ñu di ko jaamu suñ borom mu far ko raxas benn yoon waaye du sotti. Eh, jàngoro ji itam li nga xam ne moo koy faj nag laa leen di wax nii neewoon naa leen su ma leen waxee lu koy faj bu ngeen ko xoolee gisu leen ko muy muy alxuraan weddi leen ko bu ngeen xoolee ne sëñ Tuubaa musu koo wax weddi leen ko bu ngeen xoolee ne yonent bi alayhi salaam musu koo wax weddi leen ko li koy li nga xam ne bu ñu ko joxee ñi mu jot a dal ci ji jamono ñu jox leen ko diir bu toll ci juróom-ñaari fan luñ ca teg danañ wér ñibbi ci seeni bokk. bu ci aw fen raxut ak tapale modi di nañ jël lem lem la wax lem dama ci insister nañ jël lem ñu jaxase ko ak xexaw lem nañ ko jaxase ak xexaw ñu jox leen ko ku ci nekk ci ñoom bis bu set ci ñi mu jota dal na ci naan ñetti kaas kaas suba ak bëccëg ak ngoon te kaas bi na nekk na nekk si mi na nekk si mun mun mun togg ba mu ñor ñor bu wér boo xam ni nii cafkaye bu baax ñu suukare ko lem ñu jox leen ko ñi mu jote dal ku nu ko ci jox juróomi fan du ci faatu ñi nga xam ne jotu leen a dal ku ko ci naani nii ma waxee nii di ci naan ñeenti kaas ñi mu jotuta dal laa wax de ñi mu jotuta dal ñeenti kaas lañu war a naan ñi mu jota dal ñetti kaas la ñuy naan ñi mu jota dal buñ leen joxee bis bu set ñetti kaas bu rombee juróom benni fan bu soobee suñ borom danañ ñibbi fanu dëkkoon bu fekkee corona képp leen fa bàyyi woon virus ñi mu jotuta dal bu ñu leen ko joxee noonu du leen dal mbaa bu leen virus bi duggee du leen def dara dana mel ni soj mu ndaw mu leen romb rek jàll li ci alxuraan wax nag mu ngi nii ngir won leen ne lem gun jaxase ak sexaw da koy faj yàlla dafa wax ci alxuraan ne wa awxaa rabbuka ila naxli an ittaxisi min aljibaali buyutan wa min alsajari wa mimma yacrisuun suma kuli min kuli samaraati fasluki subla rabbik zulalan yaxruju min butuniha sharabun muxtalifun alwaanuha fihi shifaun linnaas wala alwaanuhu li ma ci itteel rek mooy li alxuraan wax ne fihi shifaun linnaas yàlla nee na lem man ma wax yu yamb mu mu di ko defar ci seen biir ñoom yamb dafa am liquide wala naan gu cey génne goo xam ne ni couleur yi daa wuute couleur yooyee nag luy safara nit ñi da caane waaye dafa wax ne nag inna fi dalika la ayatan li xawmin yatafakkarun loolu kéemaan la ci ñiy xalaat loolu kon alquran moom monu xamal ne kon eh, eh, lem day faj yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam xamal nu nenu lem day faj jëpp tawat judul faatu bépp tawat budul faatu rek lem de ko faj Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul dafa waxoon sexaw fii léegi ñu ngi koy wooyee turam woowu ñuy wax sexaw mën naa faj bépp feebar jëpp jëpp tawat kon nag yow mi amum xel tey xalaat dellul fexeel ba bokk ci li xaw min yatafakkaroon nga bokk ci ñiy xalaat te xam ne suñu boolee lem ak sexaw defar ko jox ko ñi mu dal loolu man maa ko wax man Koso Astou Lo Mbacké di turandoo Serigne Koso Astou Lo moom sëñ Modou Awa Balla di doomi Cheikh Faty Lo Mbacke moom moom Serigne Cheikh Faty Fallou maam Birahim borom daaru maa leen ko wax fii wax naa ci biir nag ne lii bu bu ngeen ci jotee bu leen ko wuutalee ak xalaat ba yonent yàlla Yuusuf joxe woon ca jamono jam tombeeloon ba kiris bu mel nii amee ba nit ñi jaaxle tiit seetkat yi ak ak ak giskat yi ak tappalekat yi boole seen doole def lan man xool xalaati nu ne te amul benn solution nanu ñàkke woon solution ca joojee jamono ni la nit ñi ñàkkee solution ci ji jamono solution bii nga xam ne nag suñ borom moomu ko ci jox moom jaarale ko fa ko jaarale fi mu ko jaarale nag bu ma ko kenn laaj ndax la li alxuraan la la xadir waxoon rek laa ciy wax init tabaatani falaa tasalanni an cheyin xata uhdisa laka minhu zikran bu ma ko kenn laaj ku ma xiir ci wax la ko nag mën naa la ko waaye bu ma ko kenn laaj ndax li ko gën a sabab mooy bi ma ko bi ma ko toppee ba war ko génne Euh, dama seet ne euh, toog naa diir bu yàgg ne ndax danaa ko joxe waaye ma toog ba mu yàgg ma ne faawu génne ko ndax sañuma ma koo ndax ilham la te ilham sañuma ma koo sañu ilham boo xam ne daa jëm ci mbindeef yi wax naa ci wax naa ci biir itam ne euh, comme ilham la te daa jëm ci biir mbindeef yi damay fexe ba mbindeef yi jot ci ngir yàlla musal leen. yonent yàlla Yuusuf nag boo ma leen ko ci tuddee ci biir ne leen wax jam waxoon ba xettali waa àddina bu leen ko wuutele ak wax ji na ngeen xam ne la doxoon diggante mag yonent yàlla Ibrahima rek moo dox sama diggante ak man ak maam Cerno Birahim am na ca yoo xam nag ay junj lay doon te junju doy na borom xel kon la ca war a leeraat dana ca am yeneen mbir yu ca war a leeraat yoo xam ne. Yohamne, xamne dana am ñuko sako leer lu yohamne xamne du bokk ak limay wax ne buma ko kenn laaj loolu bu ma ko laajee ko leer waye dal nañu fexé ba ñimu mu dal ñepp nañ leen di jox lem guñu xexaw muñu lem te suukar sa baña wex nañu baxal ci xawma ba mu for bu mu nek lo xamni ne day nek lo xam day léger ba mu upp buñu leen ko joxé buñu leen ko joxé té respecté ko wallahi tallahi dañuy wër wax naa leen nag kañ la fi wàccoon wax naa leen kañ la suñ borom dimbali nu ba jox nu solution bi koy bi bi koy bi saafara keroog ci àllarba ji bi ñu neema suñ muntaxaa woote na am njàng sax man damaa dama dama damaa yéemu ci yàlla ba sama yaram di lox xam ne eh, ndimbalul suñ borom daal eh, yàlla rek moo xam fu koy jaarale Sëriñ Muntaxa ñoo ngi ñaan yàlla sàmm ko te bàyyi ko fi te yàggal ko fi lool ginnaaw bu bu ma leen xamalee ne nag sexaw moo koy faj munu boole ak lem na ngeen xam ne sexaw moom yi ak lem goog yi képp ku ko ciy jëfandikoo ci ci ci lii nang ko boole ak baaqiyaatu saalihaat boo ko deful seytaani iblis dana ko yàq moo gàngooram Sëriñ Tuubaa mas na wax sax ne baaqiyaatu saalihaat défense bu rëy la buy dox diggante nit ki ak lu ñaaw wala baaqiyaatu saalihaatu junna an kulli suin wa sabilul janna waxi Sëriñ Tuubaa la kon képp ku ngeen bëgg mu mucc ci coronavirus bii fu mu mën a ne ci àddina nangeen ngeen fexe mu jot ci lii te jariñoo ko wa ma faaltuhu an amri wa ma faaltuhu an amri loolu nag bu ngeen ko laajee borom xam-xam yi dina leen wax li tax ma wax ko jàppe leen ko kon rahmatan min indillah wa ilman min ladunhu te tasaare ko ku ko ci jëfandikoo suñ borom dana la suturaal ci coronavirus bi képp ku ci jot nag qul ma asalukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala llahi alamin laajuma leen cig pay man payuk suñ borom doy na ma sëkk wa ma faaltuhu an amri kon na ko ñëpp yaatal